li nga xam ne xew na fi muy rek diir si bi ñu toogal rakkam boo xam ne dañu ko faat euh, mu nekk xew-xew boo xam ne nag métti na ñëpp ci Sénégal te gis nañ recrudescence li nga xam ne moom mooy meurtre Sénégal euh, la jaal li nga xam ne ak Sénégal yi. Euh, maa ngi maa ngi rafetlu seen teewaay fii yéen ñëpp di rafetlu seen taxawaay ak seen ñëw seen support ak di rafetlu tamit sama nit ñi ñëw ñoom. Nyo jóge fii ñuy amerik Amérique xam dudo ñoom Seka ah ñoom tebit tamit maa leen remercier ak Vieña fi jóge sank di wax ne lépp rek sunu borom dal waaw sunu borom dal lépp dal sunu borom la daal waaw. xibaar bi nan nga ko nan nga ne sa bakkan ko faat. man mom xam nga yalla dafa dogal ne euh, dara duma ma nak tay tey ma sax jour nga gis nit ku sa kanam so xoolee yaakaar naa lundi laa woo sama yaay euh, lundi ay booru ay booru midi Amerik ma ne ko yaay gentu gént dama génn sama rakk bi euh, ñi jam ko paak te tamit sama yaay sama yaay sama yaay ba ma woowee tamit loolu la ma njëkk a wax dafa ne ma carrément ma carrément sa gént bi amna na parce que tamit àdduna moom lépp lu ñu si àdduna da nga koy sóoraale avant xam nga parce que nit nit su yàlla sàkkee dund dafa sàkk sàkk dund par sak de kon lépp lu fi am solo mooy ngëm-ngëm xam nga man su may joy, si sama côté papa laay joy, parce que da ko bëggoon trop parce que mulut la Muhammad, Mohamed xam nga mu nekkoon mu bëgg ko trop trop trop ba dañ ko doon ne ko kii yaa nu mënta mel yaa ko yaa ko yàq man su joy, jooy si côté boobu laay joy, parce que tamit euh, xale la man moom su ma gisoon daanu ma sigg man daanu ma sigg di ma xool mën naa jógee Amérique ay ñetti yoon wala ñaari yoon mën nañoo bañ a gisante damay woo téléphone rek xam nga ñu waxtaan tamit dañoo xamante ay xarit mooy li may wax chaque jour si ay soci euh, réseaux bi ne foog ñu moytu àndandoo yi foog nga xool. xam ay xarit lañu woon yàgg nañu ànd wala bi nga xamante non ba nga xamante yàggul mais bokkoon nañ si ay fréquentation yi ñuy ànd xam nga ba tey affaire xaalis boole leen ba loolu indi euh, jug si ndax euh, ki ko ki ko jam moo dem jébal boppam police xam nga parce que xam na ne kon li mu def moom tayu ko. xaw ma tay na ko xaw ma tayu ko waaye tamit li li mu def moom xam na ne def na loo xamante ne mu dem jébal boppam police xam nga moo tax chaque jour sooy wut rek na nga ñaan yàlla sa àdduna wut ay référence xam nga ndax man yaakaar naa dëkk naa fii mais ñu bëri ñu ma parce que fréquenté wu ma fii parce que su may àndal damay xam ñu may àndal parce su may wax si lu bëri si réseau bi naan xarit xarit xarit xarit ñu bëri di kaas du ma ne xarit amul waaye dafa yombatul parce que yombatul mooy parce que xarit chaque jour su la tegee bët mun laa dimbali te xarit mooy man li ma gis si xarit mooy tey nga xam business ne ma ah lii de soo ko defee da am xaalis lii de soo ko defee da nga ibbeeku wala nangam nangam ah yow diw de jaara si yoon bi yoon bii de soo ko defee yàlla dimbale wala nangam mais xarit boo xam ne tey même am na xarit yoo xam ne dañ lay dimbali dimbali dimbali di dimbali ba yàlla dimbali la nga ëpp leen tuur sañu def la ennemi parce que kooku du xarit xam nga parce que moo tax ñu ne li nongoo naan ki nga ki nga tolloog doole rek nga mën a àndal xam nga mais parce que léegi jamono bi moo yàqu te aussi Sénégal dañoo jël ay crime di ko di ko bay bayee soo waxee soo xoolee ñu naan te si euh, pil xale yi léegi pil yu ñuy jël la. pil yu ñuy jël la pil yi mooy pilu drogue yi bees génn léegi. moom la ñuy jël rakkaaju du ñu xam du xam du ñu ànd du ñu seen sago soo demee côté Almadi mu ngi ci fees dell pañe soo da ngay gis sa xale bu jigéen bu toog teg boisson am dem di sawi gars yi jël ko dugal ko si boisson am xam nga moo tax fi mu dëkk bi léegi mën ta dem parce que léegi nekkul dëkk boo xam ne organisé organisé wul soo gisee Griff euh, su ñëwee sama kër dafa manqué dara sama kër manqué wul dara. mais soo gisee may dala hôtel di fay ay deux millions trois millions parce que lii laay bañ da ngay génn nit topp loo da ngay génn nit bëgg laa agressé léegi soo nekkee foo xam ne tey amul amul sécurité mooy tey dañuy rey na sam benn xarit jóge na fi Amérique ñëw noonu lañ ko def xam nga loolu lay sóoraale du question que ay da ngay daw dëkkandoo da ngay daw sax damay ngeen euh, ngeen jël sama dëkkandoo yi nga xool nga fii damay jënd ñoom ñëpp ay saako ceeb diwlin saako weer di leen jox xam nga te si télé laay waxee xam nga léeg ma rey nag séddale leen jox leen xam nga man sama life lay seef Amérique bi ma dëkk sax kii kii mën na ma seere sama xarit bee toog sama kër yëpp su ma génnoon loo wax si kër gi dégg naa ko fi ma toog nii loo wax si kër gi maa ngi koy dégg. lépp lépp sama oto sama sama sama kër fi ma toog nii soo taxoon si buntu loo wax ma dégg ko fi ma toog. non du xelu dalu àdduna foo dem ñun ñëpp ñu toog nii si fii salle bi nii dañoo tolloo xol tolloo ñu xol. ku nekk ku nekk ak sa yéene ku nekk ak li nga bëgg si doomu aadama ki nekk ak li nga namm si doomu aadama parce que fii sunu borom rek fi nekk ak sunu borom sutural tey soo nekkee nit koo xam ne nag yow amoo benn ngëm-ngëm bi pour nga pour ñu faagaagal la day yomb man soo gisee lu bëri bëri même euh, ba ma ba ma tolloo si ay 25 ans dama bàyyi dem ay stade ak ay làmb ak yëpp dama ko bàyyi dem parce que ñi lay ak ñi lay contre ñëpp foofu la ñuy profité pour am la. d'accord léegi ñu revenir un peu ci kaw Mouhamed ñu wax stade lañ ko fàtte ak yooyu mais tey boo doon def témoignage ci moom xam nga bu dara amee ñu bari nañ ci wax mais yow mi bokk ak moom lan lay doon. waaw sama rak la parce que mooy sama caatu yaay sa papa bëggoon ko lool mu turee ko Mouhamed mu nekkoon tamit koo xam ne man wax dëgg yàlla man musuma sigg di ma xool. te soo xoolee même muy kër gi fii tamit musul sigg di xool di xool ken sooy wax ak moom day sëgg sax ba ba baa mu ree xam nga soo xoolee tamit li ñu fréquenté bariwul parce que koo koo fréquenté lu bari man moom fréquenté lu bari parce que soo xoolee mën naa ñëw Sénégal ñetti yoon mën nañoo bañ a tegante ba téléphone la ñuy déggante ba ma ñoo fekk ma si hôtel bi xam nga ñu waxtaan mu dem ma dem xam nga xam nga loolu lu bari mënoo ko jàng si moom li nga mën a jàng si mooy mooy li nga fekkee xam nga mais li la nekk sa ginnaaw mënu mënu mënoo see wax parce que li nga fekkee sa diggante ak moom loolu nga mën a mën a wax waaye xam naa ne sa mbàppa ku ko bëggoon la ku ko ku ku ko tegoon fenn fi la parce que sama daa bëgg Mouhamed ba tuddee ko Mouhamed da ko da ko da mu am lumu am sax da koy jaral da koy jaral mu jox ko mu jox ko ko te eh, eh, yaakaar naa ne ba may woo Papis mii dama ne koon eh, lënd bi dem dafari passeport ma am ku ma ko booleel rek lënd bi la la waroon dem pour jéem a déposer parce que keneen ki daan déposer ba pare keneen ki waroon dem déposer xam nga mais man damay jàpp ne lépp yàlla la ndax tey ku dee sa jamono ji jamono ji ku dee sa nga noppalu ndax nit ñi maytuñ kenn jàmm sagam nit ñi ñoo tu nit ñi jamm kuñ ci ray da ngay noppalu man man fa wax tek man lepp dama japp na yalla ndax amerique chaque jour gis crime d'accord mais fi ci sénégal ñu gis fuite de sens bi ñu bari dañuy waxaat ñu bëgg ñu and li nga xam moy peine de mort manam ku faat ñu faat la est ce que yaak ñoon yeena bokk xalaat wa parce que lool c'est normal parce que lool suñ ko defon tay dina wàññeeku amérique sax am amna am peine de mort amerique waxuma la sa ray bu ndaw sa soko defé sa amna dëkk yo xam soko defé dañ lay xam nga te Amérique da ngay gis nga rey ñu ne tëj tëj nañ ko ñaata cent dix ans xam nga cent dix ans du tëj ndax ku kooku moom dee nga xam nga am na ñoo xam ne dañ leen soo leen xoolee di ko gis am na koo xam ne deux cent lañ ko tëj am na ñoo xam ne mille ans lañ leen tëj te américain solo la tëjee ba sa biir bàmmeel soo deewee da koy tëj tant que sa peine jeexul du la bàyyi. xam nga kon Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne diw dafa dof këyitu dof dañ ko lu jënt lii wérul wala nangam loolu war a jël yi tege ko fële su loolu ku nekk rey nit dem wuti këyitu dof nga indi ko xam nga parce que fii sunu sunu sunu sunu réew mi ñoo ñoo war a defaraat jikko yi ak xol yi tey nit ki su defee su defee crime ñi àtte ko duñ ko àtte criminel ah tëj ko génn tund ah su boobaa lii yëpp dootu fi amati mais rey nañ kii rey nañ kee rey nañ kee balaa ñu ne kii dafa am ay rab kii dafa am lu ko dal kii dafa am lu ko topp wala nangam nangam loolu amul amul amul amul njëriñ xam nga su doon tey ku rey ñi rey la kenn du am fi tu rey xam nga te ñu wàññi alcool baa bëri léegi alcool sa moo gën a dox sangara léegi moo gën a dox boisson xam nga alcool ya-, yaa ngi wax léegi ne sa xayti papa la woon ci jamono ji ban état d'âme la nekkee waaw sama papa xam nga euh, moom moom xolam neexul fi mu toll nii soo xoolee bugul woon gis sa koor euh, bi wala bugul woon fekkee sa fi ñu koy robee xam nga parce que ama doom doom dafa sax si xol xam nga te aussi léeg-léeg di nga am doom joo xam ne da lay jege tey sama papa mën naa ko defal milliard su su ko soxla woon mu yëkkati jox ko man su ma soxla soxla ko sa di yow nga mais kenn yow duñu fa xam nga mais loolu da borom man man mer mer mooy ne ma man man man yaay man dama jaxal man limay def ci yeen limay tax yeen suñu li li yéen ngeen ngeen am gën am suñu pa pa pa ka man waaye mais après damay revenir damay sante yalla parce que xamne comme ko man man la ko yalla man la ko yalla man lo kon na ko sante xam nga léegi sama yaay yuuxuma assalama xam nga pour ma def pour ma def dara ci sama ben rak wala dara parce que léegi ma toog yaa ma ko yéen la ma tax yéen yërëmu leen ki leen di dimbali ki leen dimbali war ngeen yërëm xam nga mais damay sante sunu borom rek xamne tay yalla so gisee lu bari ma diko def ci social lepp dama dund lu metti damaa dund lu metti dama dund lu metti dama jaar fu méttee méttee métti métti xam nga nekkuma woon nekkuma woon si famille boo xam ne damaa bokk si famille am xaalis wala famille nangam nangam te su soo bokk si famille xeebaate bi day bari te nit ki su ñuy suñ lay suñ lay xeeb wala ëllëg ñuy xeeb say waajur yow su dee góor nga da ngay jéem a dem takk say ndig nga dem liggéey parce que loolu mooy tax rayante bi mooy course bi ndax képp ku xeeboon sa yaay tamit su rombee su rombee sa yaay dina ko gestu xam nga foofu la nit di rayantee mais du du du ay du ay ngóora wala léegi wala laala parce que yàlla rek mooy mënal. Amérique Amérique dama faa yàgg. Amérique am na ñu ma fa gën a yàgg téeméeri ci neen mais ku nekk nag foo jëm si àdduna rek yàlla mooy mooy jël mooy jël sa yërmande jël ko yóbbaale ko ànd ànd ak yow. Mm-hmm. ba foo dem rek dalay aar. xam nga wax léegi ki nga xam ne moom moo faat sa rakk ci koñ bi la dëgg ah, ndax xam yoon jéem nañoo ñëw ci kër gi ngir masawu leen ak yooyu. non xam man man maa ngi soog a ñëw maa ngi soog a ñëw maa ngi soog a ñëw tey suba xam na lu bari moom mënu ko xam parce que ñoom fii lañ dëkk Grand Médine si woto stade Amitié lañ dëkk nii xam nga xam nga àdduna moom nit moom su defee lu muy def pare ku nekk mën naa xool noonu ñu ko lijjantee ak parents yi wala nangam nangam xam nga parce que man lépp ndogalu yàlla laay wax rek suñu borom man suñu borom laa suñu borom daal laa doyloo ndax nit nit toog na ba pare gis naa koo xam ne préparé naa ay bagage am tabax këram building ba lu ko neex jël ay otoom teg ñett fan moo ko dese moom xat attaque dee xam nga te su ma ko mosaan fekk dama koy tooñ naan ko la ma doo solu doo dund dundal bala ngaa dee te ni ma ko waxee noonu bañ ma ñëwee ne ma dafa dama ñëwee butigam ñu ne ma dafa gaañu man man gaw ma ko sax xam nga moo tax àdduna foo nekk rek lépp li nga yor si àdduna bokk ak doomu aadama yi parce que ëllëg xamoo kan moo lay dimbali xam nga xamoo kan moo lay dimbali xanaa ma ne di nga dimbali nit di nga dimbali nit ba kooku ëllëg tudd dimbali la xam nga liy waral loolu lépp mooy si yow sa xol sa xolu yërmande soo amul xolu yërmande tey foo dem dëkk boo wàcc yàlla kenn du la yaatal xol nag mooy tax foo foo nekk si àdduna rek ak lu mu métti métti nit ñi yaata nit ñi yaatal la waaw ndax tey mënuma jël di déplacé ay nit ñoom Seck ak ñoom Seydou ak ay ñoom Meduna Gaye ak Fadel ak ñëpp parce que nit ki am na foo xam ne ah, mooy fulla beeg jom jaa tax xam nga fulla beeg jom jaa tax. waaw loolu rek loolu loolu la ñuy demee soo gisee chaque jour li Seka wax léegi rek may ku wax ku ma woo téléphone naa ma Griff Lissa ma ne ko eh taluma la ñaata nga nit gis ñu feebar nga ay waxu baal ak ay wala nangam nangam loolu laa wax laal kii maanaam bul ma ñaan waaw euh, bala bala laa jox dara nga si dem di yóbbu ay xew ak nangam man dem jox ko waa euh, Dakar Buzz kii fekk na ma koy wax ba tay xam nga parce que parce que ñoom li ñuy def ah ñoom ñooy yëkkati seen xaalis di si def ñoom Fadel wala ñoom ñoo si sonn ñun dañuy toog ñu yónnee ñu vidéo sax ñun suñ ko seetaan sax dañuy jooy duñ ko yeggale parce que man du ma seetaan sax laal ki du ma toog sax di seetaan télé baa may seetaan yenn ndax sama jot mayu ma ko kii que da ngay busy koy jàppalaay bagage moom daa mujj dama girif bàyyi ma si kër rek que xam na li ñuy daj parce que li ñuy daj ñun xam nañ ko xam nga lan mooy nekk sa dernier mot sama dernier mooy di sant di sant sunu borom di sant sunu borom bu baax a baax a baax di sant samay ñaaru waajur xam nga di sant ah sunu dëkkandoo yi di sant sama sama famille yi nga xamante ne ñëpp teew taxaw di sant nag sama xarit yi toog nga xamante ne vraiment mooy duudu ak ngóor ah ak Serge mi Seka ak Aziz ak sama yenn xarit yi jigéen yi ak sama gars yi ñoom ñoom fifty ah ñoom koto xam nga mu ngi mu ngi noonu ñoom. Euh, gars bi ngi fi daal xam nga xam nga kon. Euh, maa ngi leen sant tamit yéen yen yen yéen journaliste si maa ngi leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan te xam naa dinañ gën a am émission bala maa ñibbi nga xam ne dañuy waxtaan si lu bari si live live bi ni ñi di dundu fii parce que li ma war a wax dafa bari mais comme que dañoo nekk si dëj am lu bëri doo ko mën a wax mais daa leen invité boo xam ne jour boo xam ne ngeen ñëw fii ñu waxtaan si lu bëri si nga xamante ne mooy xew-xew bi am si biir Sénégal bi xam nga te mooy li làqatu ak li nëbbatu ak li feeñ xam nga waaw yàlla ñu yàlla sutura di wax kontaan naa trop di bokk ak yéen naqar ngeen koy bokk ak man lépp yàlla yàlla doon sutura xam nga di gërëm Fadel mii bu baax a baax a baax ndax euh, liggéeyam rafet na si social mi def bu baax a baax a baax mm. parce tey Euh, àdduna dafa am loo xam ne yombul xol rek mooy def yenn yi xol mooy tax ngay nit feebar su fukki caméraman doon def li Fadel di def kon barke Serigne Touba dëkk bi avancé na bu yàgg kon moom mi yàlla na ko yàlla dolli sutura yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla dimbali ba lépp lu muy yootu si àddunaam yàlla na ko si yàlla taxawal te xam ne lépp lu ko waay jàppale si malade la jëm ba xaalisam da siy dugg waaw may ñaan nag ñi nekk Amérique ak ñi nekk fépp. nañ jël seen alal seen lépp jàppale Dakar Buzz ndax ku jàppale dakaar Buzz rek ah daa jàppale nga Gris Sougou ndax fi mu jëm fi mu jëm la yàlla am yiw ah la yonent bi am yiw ndax ñu bëri ngeen ay milliards milliards dañuy dem fu ñu mujjee ami cancer ami dialyse ami ami jabet ba xëy dee parce que ñu si dimbaliwuñ si ñu si war a dimbali kon soo xoolee baadoolo yi sax ñoo ëpp lu ñuy dimbali ka ni borom alal di def kon yàlla ñu yàlla dolli sutura kontaan naa trop jërëjëf